Papa! mbokk yi xale yaa ngi ci diggi géew dox ci diggante Thiatou Massé ak Modou Lo Junior xaw ma nag ban Massé la Massé Gueule Tapée la wala Massé Parcelles wala ban Massé la <laughs> man xaw ma ban Massé la eh Nobé <laughs> eh Nobé Nobé kaay fi waayu <laughs> Thiatou Massé ak Modou Lo Caatu Maase ngi noonu xoolal ma tànku nëbi Caatu Maase nëbee eh, kaay fii ak sama caméraman eh eh boy am Caatu Maase ak Modou Lo Caatu Maase ak Junior Modou Junior mbokk Caatu Maase ak Modou Lo nañu Caatu Maase ak Modou jàppante nañu Thiatou Mansé ak Modou Lo Thiatou faxataat na ko eh jëlaam na Caatu Maas est-ce que daanu woo Caatu Maas est-ce que daanu woo ku daan wala arbitre bi da leen waat ñu bëre kan moo daan lu arbitre bi wax bëre waat leen d'accord naa loolu d'accord naa loolu d'accord naa loolu Caatu Maase ak Modou Junior eh, eh, eh jàpp na tara say ak daan na ko Modou Lo daan na ko xaay bàyyi leen seen <laughs> arbitre sifflé na ci diggante nëb ak bu ndaw cokkaas na léegi dóor na eh nëb baatu ko doomu daanu nëb bu ndaw bu ndaw daw na jël nëb nëb <laughs> a ngi noonu nëb ak bu ndaw bu ndaw a ngay dóor nëb ak bu ndaw bu na léegi dóoraat bu ndaw ak nëb na ba ginnaaw nëb door mu ngay door <laughs> eh bu ndaw bàyyi xel nëb bu ndaw wàcc na bu ndaw a ngay plaqué jël eh bu ndaw ak nëb bu ndaw defal ndànk bu ndaw defal ndànk bu nëb ndaw bu ndaw. bu nëb ak ndaw bu ndaw moo ñëwoon ginnaaw nëb la ñu jaakaar lool lu ko nëb di def wala bu ndaw lu mu def muy def fii looy def fii looy def fii sarasay da nga koy dagg ah daga sarasay déedéet yow fas bu nëb ak bu ndaw nëb ak bu ndaw nëba ngay dóor bu yàggee léegi buntu feeñ nëb ak bu ndaw ee nëb nëb moytu bu ndaw nëb bu ndaw la muy liggéey bu sottee arrêté arbitre arrêté na arbitre arrêté na bu ndaw dafa mel ni dafa yàbbi woon protège dent ba dëkkal ma bu àll bi xamal ma nëb <laughs> nëb ak bu ndaw eh. eh <laughs> nëb nëb encaissé na sëlmu eh bu ndaw mi affaire la de bu nëb ak bu ndaw jël ba bu ndaw ko nëb lu muy def nii nëb ak bu nëpp ak bu ndaw daa mel ni day yàpp bëgg yàpp protestant ba boo ko defaatee abit bi àtte nëpp ak bu ndaw nëpp ak bu ndaw bu ndaw sengoor yaa ngay lang caxabal na ko bu ndaw caxabal na ko tey nga dee ee eh, jël amagul bu nëb nëb nëba nga koy nëb nëb nëb takk bu ndaw takk na ko nëb de est-ce que dina ca génn nëb est-ce dina ca génn moo ngi koy tegal 16 jël amagul eh, bu ndaw daan na nëb bu ndaw daan na nëb waaw bu ndaw daan na ko. tournée fii tournée fii. kay kay kay kay kay. tey loo def fii. xoolal rek. fii du sama place. mais sa adversaire ma damay nangu. nangu. dégg nga ma xool ko. xoolal kii waaw xoolal mais yow xam nga li xam nga li xew. li mu métti dafa bëri. man dama ay mbokk. am jàppale. ma la bëre yow xam nga ma. ma def ko bëri. gañ ay drapeau. ñëw ayel daan daanaat ku ma jë ku jàpp ne maa la man lamb woon ma boppam mais xam nga fii sama dama dama ko xatar bi. ñu séddoo. ma wër ko ma ma ngóob ko. mu déclenché mbor ma sooxal ko waaw. Ah, xam nga ni ah, kan laa mujj beneen. Siteu bu Ngor. lan la bëre grand combat. waaw moom lay Fils de naa la. siyaar naa la. ci loone waa ñu si kawam sant yàlla. mais li yaay bëre grand waa gis nga loolu la yàlla dogal. maay bëre grand combat bi. mais naka nga waaj. waaw waaj nañ ànd sa ñu mbokk ñu war a ànd nañ bu baax a baax. war a jëflante sañ adversaire. combat bi tey lan nga xeex wala bëre. tey lu mu laaj dañuy làmb. lu mu laaj lépp pare nañ. dañoo ñëw pour am ndam tey. ndax daa lu topp seen ginnaaw. daa dafa fu mu toll. pare nañ tey lépp lu

ngeen yéen waaw yéen instant bi ñooy tuus nii de waaw waaw mais si nag pour ngeen gaare xam ne ñooy tuus. nuyu naa la fa. lay fay bu baax Ousseyn. ñu ngi sant seen Cheikh Fall bu wér. mel ni tey yaay bëgg grand combat bi. waaw tey ñooy grand combat loolu la yàlla dogal. naka nga waaje waajal nañ si fulla ak fayda ni nga daan waajee kon suñu combat yi waaw di sàkku ñaan nag di ñaan sunu borom mais ñun tam lu sedd guy te mu doon loo xam ne lu ñu dig la. combat bi tey dina am xeex wala dina am bëri. Euh, mën na am lépp mën na am lépp. lan nga yëg lan nga yëg tey instant bi moment bi may wax ak yow. instant bi sant yàlla rek. waaw sant yàlla rek laa yëg. ñu ngi sant daal. waaw kontaan ba ci kanam. jaajëf.

ci diggante Boy Porto ak Zarko Boy Porto moo ñu wan ginnaaw Zarko la ñu jàkkaar lool Zarko dóor na léegi booy Porto dafa mel ni moo xaw a gën a diis tuuti wala boog tolloon nañu ay naataango lañu booy Porto ak Zarko booy Porto dox ci kawam añ na ko booy Porto Zarko booy Porto ak Zarko Zarko jàpp na Zarko booy kal na Boy Bordeaux ak Zarko Boy Bordeaux Zarko Zarko jàpp na Boy Bordeaux moo koy dooj eh Zarko lu def nii Boy Bordeaux ak Zarko Boy Porto Zarko jàpp na ci ñaari catu ngemb li wala boog Boy Porto eh Zarko li nga def ni erreur Boy Porto lu mu na Boy Porto suuf na benn bët moom sigi waat na oh xale bu la bëttee nga am bu la bëttee nga Boy Porto bu la Zarko Boy Porto Zarko Boy Porto Zarko Boy Porto Zarko Boy Boy Bordeaux ak Zarko Boy Bordeaux ak Zarko ak Boy Bordeaux Boy Porto ak Zarko Zarko jàpp na Boy Porto moo ko bëgg a songale tax kal na ko taxabal waaye dafa sori Boy Porto Zarko Boy Porto ngay dóor Zarko ko bëgg a waaye dafa diis dafa diis Zarko mënoo mënoo Boy Porto noonu Zarko Boy Porto Boy Porto Zarko arbitre ba sifflé na bi sifflé na ci diggante Boy Porto ak Zarko Zarko moo ñu féete à Boy Porto moo ñu féete à Boy Porto wàcc na ba moom Zarko Boy Porto Zarko cokkaas na léegi waaye delul Boy Porto dafa bëgg dem wala lu mu bëgg def daw na Eh, génne na ko Zarko génne na ko Boy Porto Zarko eh Zarko laaw na léegi laaw ba daa sori Boy Porto ko daw jëli mu génnewaat ko Boy Porto Zarko zongale na ko da ngay daanu Zarko da ngay daanu Boy Porto daan na Zarko zongale ba ñorul Boy Porto zongale ba ñorul Boy Porto daan na Zarko. boo bëree yàlla may man dama yàlla mënuma ko nag mais yàlla moo ànd man. mais nag dama ko daan jël bu rëy. dama ko fàq boo mu tëdd. ma bàyyi ko. arbitre bi sif la kaa xool te deuxième maa sama rasta lay jàpp. kii mënu ma daan barke Seydina Mohamed boo ma génn leen vidéo bi léegi nga gis jël bi damay def recours incha allah damay def recours damay def recours. am na fu mu xaj vingtième am na fu mu xaj loo defee tamit day perte làmb la xëy na man xëy naa defagul dara si làmb na waayaat am ak ay mboqam la vie continue waaw man làmb ñu nag dama jot ay coono yu métti nii la rek dama yàlla mën a fayee ba pare topp si li topp sama ginnaaw dafa bëri nii la moo demee. waaw bu ndaw bi yow daan na léegi nan ma ko jox bu ndaw bi nan ma ma defaral ko loolu maa moom lamb la nan ma ko jox baax na évité nu Wassare Lamb maa woo tax la ngay ñaang ñaang lu ñu. damaa ñaang naturel. Ah. damaa maa caadu bambara la ni la <laughs> Saloum la ndam kese. Hmm. li topp sama ginnaaw. yaa kan la. maa booy joolaa la. yaa kan. Bib Diop 95 doomu bi. waaw. xale bu mën a bëri. maa ngi nii xool xale yi. Eh, mais may sonn. su may def benn di def fukk ndax ñii. ñii ñoo tax may sonn. parce seex na seex Sarr. mais eh, combat bi lu mu laaj. combat bi lu mu laaj xeex bëre. dina am xeex. ñaar yëpp damay samp jaaga. waaw damay samp jaaga tey. baax na ci dama daan jàpp di daan rek tey dama pare pour. xeex bëre. xeex bëre ñaar yëpp la CNG wax xeex bëre. yaa. sama doom de sama xarit la. kii fu mu sama doom la sama doom de la. mu ne ma koy wuyuli. mais Baye ki ngay bëreel diis na. ah ah ki ngay bëreel diis na de. diis na xanaa ah, gisoo ma bu baax. xaaral ma nuyoo ba pare. auzu billaahi mina shaytaani rajiim. ginnaaw bi sant yàlla. maa ngi sant sama ñaari waajur. parce que tey maa kontaan parce que maa ngi gëj a bëre. tey maa ngi war a sama bopp. loolu moo la kontaan. lan moo kontaan loolu bilaay moo tax ma kontaan. mais nag booy bëre mais yaakaar da ngay wër ku nooy wala ku oyof nga dugg ci moom. ma loolu tax maa jug si làmb lamb. ndax maa jug bu ne ndax maa jug. te bu ñu baax na. tey bés bi tey bés bi dina am xeex. ah. bés bi dina am xeex tey. na déggu ma. combat bi tey dina am xeex. loo ci xaar na si am lépp na si am lépp. <laughs> waaw. non gars lan ngay wax lan ngay wax adversaire. ah di ko ne mu xaar ba ñëw tànk mu ñëwee rek. waaw bu ñëw bu ñëw xaar ba tànk loolu yow mën na de. yow mën na. xaar bu ñu géew ba. bu ñu gis lépp. kon baax na li nga waxoon lu waay waxoon na ci dellu. mooy waa Wassare Lamb da ngeen maa ay ñaane li may sañse jël ma jëlal li sañse fan dafa rafet. le géant du Cap Vert le géant du Cap Vert maa xew. war a bëri le 5 juin arène nationale bi fii ma war fee grand combat ànd ak sunu assistance nga xamante ne ay millions la may jox par combat. xam nga dañ ne nag bu mag ci bésu mag lay dee dama doon ba combat bi waaye jéem a doog non man xam nga la moo tax war maa teel a jël parce que bés bi daa mel ni maay borom. sama doom mooy bëre fëgale bu ngor waaw ma teew rek def ni tuus tay neex na trop ngor dañoo dégg yow ñoo ngi fa open press ngor dañoo dégg lamb dañ koo jël am luñ ci téye ambiance ak mobilisation ak bëre bu neex bàyyi ko ak ñun li des nag waajee yooyu gars tay naka la nara bëree booy booy booy bu mën a bëree booy bu mën a xeex xam nga commencé itam ngor am na lu mu leen waxoon avant muy commencé fëgale bii mooy gën a yomb waaw li bi mooy gën a yomb booy yi ñuy bëree ñëpp duñ seen ay morom ñoo dañ leen dàq bëri dàq leen xeex mënoo leen nga xam nag parce que leen booy aw carrément mais billaay booy bu ñu bëree rek dina leen di ngeen dar seen gémmañ waaw loolu maa la ko wax gars yi ñuy tar bi yu bëre ñu ay coach yu baax la yor ay père Ibou Diop champion d'Afrique baax la ba ci

vite fait Thiatou Bambara vite fait mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw Thiatou Bambara la nu jàkkaar lool vite fait est dina gaaw Thiatou Bambara est-ce dina def yëfi caat vite fait Thiatou Bambara

Big Fé door léegi Caatu Bambara daw na yor door na Big Caatu Bambara vite fait Thiatou Bambara vite fait Thiatou Bambara Thiatou Bambara fa mu yegg vite nu mu def da koy jaxabal vite Bit Fe Thiatou Bambara taxabal na ko da koy daan oh Bit Fe daan na Thiatou Bambara Bit Fe daan na Thiatou Bambara Bit Fe Bit Fe daan na Thiatou Bambara Bit Fe daan na ko dama oh. di sant sama mbokk yëpp boo bool bool maa ngi lay sant di la gërëm. wax nga teg bool di bëri sax soxla ma leen. dama jox loolu xam nga bu baax yaa ma yar. dañ ma jox si ponkal yi ma bëree ak barke sëñ Tuubaa du maa ngi billaahi wallaahi taalaay. maa ngi trois combats deux KO ak bii waaw. ñi may bëreel ñëpp saa buñ buñ taxawee dañu am ak kii lay lekk. lu tax nga barki Sëriñ Tuubaa ma. Abdoul moo jot. sa papa daa def lu ne si lamb. dama bëgg ngeen invité ma instant yi sama xol dafa sedd mënu maa wax. billaay walaay su ma wax. Papa Laye ziar na. doole siyaar bu wér gannaaw siyaar na bu wér. bi fi mujj sa digganteeg euh, George Bush nga bëre bëre bu rëy daan tey nga ñëw dafa mel tey moom da nga da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay noos moom. dama jaay taar dama jaay taar te dama ñëw jaay taar quoi. mais keroog ñu gis na nga bëre daan jël bu rëy fan nga jëm. waaw man maa ngi ci làmb ji instant yi maa ngi ci dix combats huit victoires deux défaites maa bëgg su may mag may ma chance. parce que booy mënu ma leen jeexal. ñan nga bëgg ñu may la chance. waaw ku si mel ni Maguette na may chance. wala Ndiaye Tine mu ñëw ñu bëre mu ngi fi amul combat maa ngi nii na ñëw ñu bëre man ak moom. Ndiaye ñeme ngaa jël Ndiaye laa bëgg mu ñëw ñu bëre wala Maguette Seck may ma chance. ñu ne la tàng man instant lu tàng rek laa yor man xale aata maa liggéey. li ma war maa koy def instant yii damaa bëgg su may grand may ma chance wala ñu may ma combat bu tàng ñaari laa bëgg wala maa ngi seeg mu ñëw ñu bëre. kontaan naa waaw. mbokk yi moom la ñu jàkkaarlool Boy Bib eh, <laughs> eh Bib Diop mi xanaa dafa mer laay léeg laa Boy Diop doon na ko guubu dal Bib Diop Boy Diop Boy Diop moo nge Bib Diop moo ñuul Bib Diop Bib Diop Boy Bib Diop Boy Big Diop a ngi dox ci kawam. Big Diop Boy Diola. Eh, Boy Diaw Boy Diola aw ngay dóor. Big Diop dafa mel da ko bëgg a jàpp. Big ko bëgg a kor na ko. Big kor na ko. Big Diop Boy Diola. Big Diop Big Diop añ Bib Diop Boy Bib Diop doo ko bëgg Bib Diop kal dafa sori Boy Bib Diop Bib Diop Boy Niolaa Bib Diop Boy oh, Bib Diop daan na Boy Bib Diop Bib Diop xoolal man booloo ma xool ma yéeg na ca kaw ma Bib Diop daan na Boy Bib Diop yenn na ba ca kaw suuf da koo zongale. siyaar naa la bu baax waaw dama ko waxoon damay samp ak yow jaaga xeex ak yow dëgg la xeex naa man dóor na ma man gaynde laa doomu yëmbal laa damay encaissé mais damay daan bu topp sama ginnaaw dafa bëri Modou Anta damay sama quatrième combat quatrième victoire nee naa la xale laa dama nekk yoon fii am nga fi trois victoire fii am naa fi trois Iba Mar benn muy quatre maa ngi sant yàlla nag di sant ñëpp ñëpp ñu may ñaanal. moo tax saa boo jàppee mu jeex. Mor Anta damaa a bëre. billaahi wallaahi damaa mën a bëre. su ma jëm mooy. mais bis bi agogoo dañoo may chance. kat quatre combats quatre victoire laa toog. dañoo may chance ma bëre ñoom. si na mu ngor jaadu na booy dañuy daw dañuy wiiri. faram mbër booy dañoo wiiri ba ma jël kii mais dañoo wiiri. maag Franc ñoo waroon bëre mais daa wiiri ma jël kii te sama lekk naa ko bu yàgg si Jax Jax bi mooy sama trois combats mu koy dëkk nee ko maay mbërëm waaw non mënul ñàkk door na ma nag sax na lay sifflé na combat bi dox ci diggante Libidor ak ki nga xamante ni nii mooy Samba Cissé Libidor moom la ñu jàkkaarloo Samba Cissé moo ñëwoon ginnaaw waa xale yi seen lewaatoo bi sori na xoolal ma xale ya ñoo ngay def ambiance Libidor Samba Cissé. bii nag kenn xamul Libidor numéro ñaata la ndax am na Libidor bu Ngoundiane Libidor bu Grand Yoff ak Libidor bi Libidor doon na Samba Cissé dóoraat na ko Libidor mi affaire la de Libidor jàpp na Libidor Samba Cissé Samba Cissé Libidor Samba Cissé dóor na Libidor da ko a jàpp war na ko ndombo eh waay xale na ko li bi door vite fait bien jàpp wóoloo ko xam moom laay la la la li daan na Samba Cissé waay waay waay waay waay waay waay waay ngoog li bi koy yëkkati ma ngay waxtaan moom ma koy encouragé cey làmb mbokk yi Fils de noonu ñoo ngi ko dëpp bi day suur cey làmb làmb ngi nii muy ànd ak waa Cambérène ak waa Guédiawaye xoolal ma ba moo ngay jonkon moo ngay jonkon cey làmb làmb lépp aar la Fils de noonu di suulu kenn xamul dem fee waaw maa ngi ziar grand xam nga bilaay man instant yi sama wàllum fees combat eh, bi dama ko pare wala ma pare dama ko war a le le treize février bilaay may ci une semaine sama yaay gaañu barke alwaan ñu dugal ma ci bés bi tey bi ma woon ma woon sa ci ay lamb parce que taluma ko mais dama ñëwoon pour remplir contrat rek xam nga mais maa ngi sant bu baax a baax sama gars yi barke alwaan jàppale nañ combat bi ñoo ko def parce que man moom xam nga loolu maa ngi sant mu ñaan ñëpp taxaw ma jàppale nañ ma waa Medina Risis Ris 5 ma juddoo fi ma dëgg xam di sant ñëpp waa génération 2000 maa ngi sant bu baax a baax a baax da nga koo naka nga bëree naka nga bëree. ay combat problème xawal ay tolof la sax moo tax benn sax. mais ñëw ma ci bëree bi naka nga bëree. sox ak Franc ku daan ñu ñu laa war a bëree. yow sa bopp moom xam dama ñëwoon xamal naa bu arbitre suulee dama koy daan amul sax ku ma dem dañu. yooyu booy yi nii ku ma ci jox ni def. du ma bëri une minute. ko bëree laa la wax nii. billaahi. mbaa nag. nuyu naa waa ziar nañu sonn ñu gis nga ñëw ànd ak ki nga xam te ne mooy frontière euh, mu am ndog-ndog ndog-ndog ko ci làmb boobaak léegi ñu gisoon génnoon na def sorti mais est-ce que affaire yi saafaraw na waaw euh, kii si ñun la dalee euh, bëre maa ngi ko yoroon diggante moo xumbal la woon combat boobu grand combat ñu ciy ñaan ñëpp nag bàyyiwuñu kenn ba si président de la république madame Faye Sall ñu ngi koy ñaan ndimbal doonoo bëgg kii ñu jàppale ngir yàlla rek ak yonente ba ñu jàppale ko mu wér mu jàppale ko média yi bu nekk dem nan fa nag média bu nekk nan fa nag lu mu bëgg lii mu jàll dama bëgg ñu jàppale ko ngir yàlla ak yonente ba yëmbal la dëkk parce commencé woon na faju waaw commencé woon na faju fi mu nekk faju bi dafa métti te moyens yi dafa day waar amul doonoo ñaanoon président de ak Mayel Tay Fall ak bépp volonté bu ci mën ak Bira Sène di diital làmb ji ak fi mu dëkk gox bi mu dëkk muy Baara muy Baara Baara muy meeru yëmbal ñu ñaanal ko ñu ñu jàppale ko ngir yàlla ak yonente ba mu faju loolu rek lañ ci moom bëgguñu leneen mu faju rek lañ bëgg amul lenn luñ bëgg ci naka lay demee day day def traitement wala waaw traitement yi boo seet traitement yi dafa seer li nga war a fajal chaque jour rendez-vous yow massage rek dafa seer dafa seer mbër la woon bokk ci ñun bokk ci lépp bokk di xale bu ndaw xale la chaque jour bandage lool moyen boobu amu ko seen seen pour mu pour mu am paas sa problème la ci biir géej la ko bu dalee. waaw diggante xumbal fay ko wax naa ko sànq. billaahi wala waaw ak biir si lii lu laa wax waxuñu seet a baaxul daa ma ne kii nañu ko jàppale doomu dëkk bi la doomu la kii si dëkk bi dëkk. am na ñoo xamante ne ñu ngi leen di jàppale defuñu dara billaay kii si doomu dëkk la xale bu ndaw la. mais CNG lan mooy rôle am si làmb la ko dalee lii dañ ko yàggal déclaré bu yàgg dana bëgg léegi seen média yi ñu jàllale ko ngir yàlla rek tax ngir ñu faj ko soxla na mu dem Europe sax faju ku ñu mën a jàpp bépp volonté bépp volonté bépp volonté bu ci mën a jàpp Sénégal mu jàpp ci ngir yàlla tax mu ngi nii massage rek moo ko dese ñu jàppale ko ngir yàlla rek tax kii mbër jàngal bëre billaahi walaahi taala man lañ ko dénkoon man lañ ko dénkoon man nii sama loxo lañ ko joxoon kon nag képp ku man di def billaahi walaahi talaahi dama lay ñaan dama lay ñaanal sa yokkute kii dama bu may wax sama xol dafa sees ba mënu ma wax li may wax nii kii yaayam ak papaam man lañ ko joxoon ñii nag ñu ngi def lu man équipe bi ñu ngi ciy def lu man te ay bi ay xale ko nekk mënu seen ginnaaw ñun ñaanay ñaan bonne volonté yi ñëw jàppale ko ngir yàlla rek tax

Thank you.

jaajo arène nationale baa ngi Pikine Yes. parcelle ba la jóge sama gaayo ibil tan jóge waaye la sibana yaar ko ne amma ko bela ka amma de ma do fara wa Baye Peulh numéro 2 Rambo arbitre bi sifflé Rambo wàcc na Baye Peulh reculé Baye Peulh sànq nee na ma dama kontaan ndax dama gëj a bëre te tey dama am combat waaye Rambo la dajal Rambo dóor na ko léegi Rambo ak Baye Peul Baye Peul dóor na Baye Peul ak Rambo Rambo toog na ci ay tànkam Baye Peul Rambo Baye Peul ak Rambo eh xeex nañu xeex nañu Baye Peulh door na Rambo Baye Peulh mbaa du Rambo ak Baye Peulh Rambo Baye Rambo door na ko Rambo door daanu dóor daanu est-ce daanu door na ko hee Rambo door na Baye mu daanu. Baye Paul doon na Rambo mu daanu xoolal ma tribune ba ñoo ngay daw Baye Paul doon na Rambo mu daanu. xool ma xale ya. gëg gëg waaw waaw. ay waay làmb gi noonu. préparé lamb bi dañoo préparé lépp préparé leen xeex préparé leen bëri lépp luñ préparé andi kon lu ñëw rek ñu xam la maa ngi jugee Kaasa laa daan fii ñëw si moom bi mooy sama neuf combat neuf victoire bi mooy neuf combat neuf victoire la moo jëm. lan mu jox Sarko. Sarko. Sarko bàyyi ma ñëw ku si daan soxla naa la. ku si daan soxla naa la. waaw. waaw dama xam ne dama kaawoo dafa ma woo si xeex ma wuyu si ko si xeex. ma woo si ma dur ko mu kaaw ma xam ne kaaw na ma àggale ko mais làmb da ngay topp action ba mu jeex. jaajëf. merci. ok.

eh lamb ji lamb pànk la kenn du may da lu waay may sa morom mu jël ko fëgg la Fils de Lirou xam naa loo ci mën a xam ba xam ko ci mooy lamb ji dina am xeex dina am Diop am joxal Diop Alioune Ndiaye ni ko lebuy di waxee tey dañuy juree yooyu yëpp tey dina am ci bés bi. arbitre bi sifflé na combat dox ci diggante Feugeleu bu Ngor ak Fils de Lirou production le 26 mars samedi il est 19h34 dox nañ ba ci côté saako yi ñoom ñaar. Eh, lamb ngi noonu doorante nanu ee eh, fi sa liiru fëgala fi liiru daw na jëli ko xeex nañu ñooy xeex nañu fi liiru fëgala fëgala fi liiru fëgala dafa bëgg a xeex ak moom mu door waaw waaw liiru fëgala Dóor fay la Dóor fay dañuy xeex xeex Fils de Lirou Feugelé waaw waaw waaw xale noonu eh, Fils de Lirou ñu mën ginnaaw ngeen moo ngeen lu ñuul teg lu zone li Feugelé bu ngor ma ngay arrière lu mu nar fàq na ko Fils de Lirou fàq na raam na jugaat Fils de Lirou taxabal na ko ba daa <laughs> lu mu koy def. génn na waaw waaw <laughs> yaay yaa ngi noonu fii sa lii fogale bu ngor eh, kontaan naa man dama bëgg dama bëgg ba bi sifflé xeex bëre jëflante ku ci nekk wane li liggéey arbitre bi waat na fii sa lii fogale ñoo ngay lewaatoo fii sa lii fogale Fils de Lirou Feugeuleu Feugeuleu Fils de Lirou mbokk yi doomu Lirou la ñoo ngay demee wet Fils de Lirou teg na pied gauche Feugeuleu bu Ngor teg pied mbokk yi tey journée Diaks dafa bëgg a xaar ak moom de dafa bëgg dem. Fils de Lirou Feugeuleu Fils de Lirou Feugeuleu bu Ngor Feugeuleu ngay tekki téere du rof bugul dara déranger ko bugul dara zone ko door na léegi moom Feugeuleu bu Ngor Fils de dafa bëgg a dem añ na ko takk na ca ngemb la Feugeuleu Fils de Lirou Fils de Lirou jàppul Fils de Lirou jàppul bëgg moo takk na ko <laughs> da koo bëgg a xaar fëgg la da koo bëgg a xaar Fils de Lirou waaw Fils de Lirou boo dugalee boos waaw gis nga làmb gi noonu xale yi dañuy bëre da ko dàq na ko dàq na ko dóor na ko eh Fils de Lirou baa di ko doomu daanu <laughs> waay yéen waay waay waay waay waay làmb gi noonu eh, Fils de Lirou fëgg la xale yaa ngay bëre fëgg la Fils de Lirou fàq na ko fàq na ko mais mais mais mais Fils de Lirou mi ndaanaan la de moo koy fàq moo koy gësam moo ngi koy fàq laay waay waay bëgg naa lii xool xale ba la muy bëree stade baa yuuxu Fils de Lirou foog la laay fàq na ko da koy génn dàq na ko plaqué mu bañ waay waay lu leen fay jar ko xale yaa ngay bëree xale yi lu leen fay ko jar na ko jooyatuñu grand combat. coach ba dugg na ci digg géew ma nee na da koy defaral ngemb la bàyyi ko bàyyi ko mu bëree. <laughs> Fils de Lirou Feugeula oh kontaan naa man dama bëgg ay xale yu jëflante waa ñëw rek jàppante déedéet Fils de Pakala door na léegi Fils de Lirou da koo bëgg a jàpp Fils de Lirou Pakala bu góor door na ko léegi kuubu dal Fils de Lirou door na ko léegi kuubu dal Fils de Lirou Pakala Fils de Lirou Pakala loxo yi daa commencé saafé oh xale yi jëflante nañ léegi combat bu neex bëre nañu xeex nañu Fils de yaa ngi wetu saako yi ñoo ngi demante baayam door na ko doo ko door Fils de ku yow bu du baax ñoo ngay xeex ñoo xeex waaw waaw non la ñu waxante woon def nañ ko ñaari xale yi la ñu ñoo ngi koy def Fils de Lirou fagal la gis dañ liiru Feugeuleu boo xoolee waa Ngor ñoo ngi ne tek boo xoolee waa Cambérène ak waa Guédiawaye ñoo ngi ne tek Fils ci kaw saako yi Fils de Lirou Feugeuleu Feugeuleu Feugeuleu wàcc na léegi bëtt ko Fils de bañ ñaari xale ay mbërëntaan lañu dañuy bëree waaw waaw xam xale yi ñoo jara fay xaalis ñu loo fay doog a rëcc eh, Feugeuleu loo def nii Feugeuleu lu muy def nii Feugeuleu lu muy def nii Feugeuleu Fils de Lirou Feugeuleu Fils de Lirou ñaari xale yaa Feugeleu Fils de Lirou coono commencé naa dugg jàppante nañu ku ci nekk ngay noyyi ku ci nekk yaa ngi noppalu waale <laughs> bu ñamantee xam ku ci nekk lu sa morom bi saf xale yi xeex nanu bëre nanu jaayante nanu doole puusante nanu léegi ña nga noppalu <laughs> munu cee ñàkk caxabal na ko léegi waaye caxabal bi daa sori fii caxabal na léegi fils de Lirou Feugeuleu fils de Lirou Feugeuleu na ko fàq na ko Feugeuleu fils de Lirou bul forcé fils de Lirou làmb duñ ko forcé ma ngay dóor fils de Lirou fa Feugeuleu taxawoon fa la fils de Lirou taxaw léegi Fils de Lirou Feugeula Feugeula door na léegi eh Feugeula ngay door ku yu baax Feugeula ngay door caxabal na ko roof na ko caxabal ba da koy daan Fils de Lirou daan na Feugeula Fils de Lirou waaw jeex na. li may doon. li may waaw waaw waaw waaw